ci solo waaw maa ngi lay gërëm di la sant euh, sëñ Mansour di rafetlu tey suñu teewaay tey fii euh, ñoo wuy si suñu mag suñu mag bu jigéen muy euh, ministre madame la ministre Khadijatou Diagne Dieye Gueye muy suñu mag boo xamante ne yàgg ànd ak moom tey mu woo ñu fii tey ngir ñu xaatim li nga xamante ne moom mooy. Euh, déggo bu ñu déggoo ci jëmmal dëgëral euh, euh, kàttanal aussi li nga xamante ne moom mooy infrastructure sportive yi soo déggee infrastructure sportive mooy lépp li nga xamante ne mooy moom la xale yi ak ndaw yi ñi nga xamante dañ tàggat seen yaram ci nañ jëfandikoo ngir gën a mën a tàggat seen yaram ci kaw loolu li ñu seetlu woon mooy infrastructure yooyu bi nga ko yoree bi nga tabaxee ba léegi dañ daan gis ay jafe-jafe yi nga xamante ne am na ko ci wàllum entretien bi ak gestion bi de manière générale te infrastructure yooyu état du Sénégal moo ko yàgg moo ko tabax te état état du Sénégal su koy tabax da koy day leb état du Sénégal war a jël xaalisam ci budget bi nga xamante ne mënoon dem feneen mu koy dugal ci infrastructure yooyu pour ñu mën ko entretenir loolu mu noroon nekk ci puissance ci ci ci ci euh, fonds wu état lu lu diis loo xamante ne. gis nañu ni que am na ay opportunité yoo xamante ne secteur privé sénégalais bi nga xamante ne ñi ngi fi seen xel match ci seen mën-mën match ak seen xam-xam match ci li nga xamante ne mooy gestion infrastructure sportive euh, ñu war leen ko mën jox ñu dénk leen ko moo tax ñu waral ñu ñëw fii tey en tant que APIX nga xamante ne APIX bi nga xamante ne ñun suñu liggéey mooy li ñu lépp naa promotion des investissements mooy ni ñu gën a mën a fësal ñi nga xamante ne ñoo am seen koom-koom bëgg Sénégal ni ngi leen yombalee ñooñu ñu tey euh, ministre bi woo tey ñu jàppale leen ci loolu ba nga xamante ne lépp lu ñu war a def ci investissement bu loo xam ne dafay war a jóge ci fonds privé naka lay mën jàppale ba fonds privé yooyu ñëw euh, investir ci gestion ak exploitation euh, euh, infrastructure sportive yooyu tey am na benn mission boo xam ne moom moo gën a jàmp muy arène sénégalaise bi arène nationale bi arène nationale bi ngeen ko gisee dina indi xaalis bu bëri ci organisation événement ak mbër mais bu dul loolu sax ci mbër yi am na yeneen événement yoo xam ne war nañ ko mën accueillir war nañ ko mën a gën a yeesal gestion bu gën a moderne bu gën a gën a spectaculaire sax laay war a wax te loolu noonu war nañ ko mën def doomu réew mooy tabax réew te ñun suñu liggéey ak suñu gis-gis ci jamono toll nii ak président euh, Bassirou Diomaye Faye lu ñu sant vision bu mu définir mooy ni que tey lépp loo xamante ne war nañ ko mën def pour yombalal ñi nga xamante ne mooy doomu réew mi ñu mën a investir jàpp ci économie réew mi nañ ko def loolu mooy suñu taxawaay fii tey gannaaw loolu am na programme bu ambitieux boo xamante ne tey ministère euh, jëmmal na ko muy ba fa bëgg ci 557 communes Sénégal yëpp bu ci nekk 550 yëpp bu ci nekk mu euh, tabax ci lu ñu naan complexe sportif soo déggee complexe sportif yamul rek ci terrain de football euh, anam suivant li nga xamante ne moom mooy potentialité ak disponibilité foncière bu chaque commune ñu jéem a xool dina am terrain de tennis dina am piscine municipale dina am terrain de basket dina am terrain de football dina am terrain de bu ci nekk daal dinañ ko jàngat càmbar ko xool lan ci ban anam nañ ko mën a jëmmalee te loolu tamit ñu ngi ci woo secteur privé bi te loolu euh, soo leen ko gisee ñu def ko mooy ne que dañu toll ci jamono joo xamante ne investissement bi état rek war ko yor dañoo gëm ni que privé bi moo waroo a tabax réew bi te loolu noonu il faut ñu oppor jox leen ay opportunité d' investissement opportunité d' investissement moom la ñu lay indil tey te yaakaar nañ tey euh, privé sénégalais bi tey suñu góorgóorloo booloo nekk benn gëm suñu réew gëm.